man damay ñëwaat un peu ci ci titre parce que comme ni mu ko tuddee Aminata Touré la la mal aimée. Mm-hmm. Euh, je je je sais pas. je comprends pas tellement li nga xam ne moom nga moom nga ko intitulé c'est-à-dire parce que peut-être image bi nga bi nga gis avec Aminata Touré toute seule donc les députés di ko romb kenn nuyu ko donc peut-être loolu ça t'a ça t'a frappé mm-hmm. mais man bu ma xoolee dans dans la généralité un peu les Sénégalais apprécient Mimi Mimi Touré mm-hmm. au niveau politique aussi dans son carrière aussi si politique aussi gis nañ ne occupé na ay postes yu bëri bëri chef de campagne mais aussi premier ministre am na ay postes yu mag a mag a yoo xam ne mhm. aussi occupé na ko ministre de la ministre de la justice premier ministre président du conseil économique social environnemental donc je comprends pas tellement très très tellement fi nga fi ngay bëgg a la mal aimée alors que elle est appréciée par la population xam ne vraiment góor sax mhm. développé wuñ ko donc comment on peut on peut comprendre contraste boobu. c' est vrai lu nga wax c' est vrai que contre contraste la. Mhm. soo xoolee postes yi nga xamante ne yu mag yu mu yu ko tu vas dire que bon kii est ce que bon elle peut être mal aimée. Ah. c' est une bonne question. Euh, mais elle a vécu une enfance très heureuse bon euh, situation bu aisée la nekkoon parce que son père. Euh, qui s'appelait Madi Touré. Mhm. bokkoon na ñi nga xamante ni ñoo njëkk a nekk médecin fii Sénégal ñoo xam ne ñu jàngi dem France après ñu ñëw di servir à Tambacounda. Euh, yaayam aussi tamit infirmière boo bokk na si njëkk a nekk infirmière fii Sénégal donc mënuñu wax ni si en enfance bu heureuse la nekkoon boo xamante ne bon bu ko permettre mu defay étude euh, yu normal bien que sax dafa am euh, dafa am bourse dem France dem jëm jàngi mais li nga wax c'est pas faux mais soo xoolee post yooyu yëpp yu mu occupé parce que en 2012 bi mu ñëwee moom elle était à New York en 2012 boobu bien avant la xam na Macky Sall mais en 2012 New York la nekkoon Macky moom moo ko indi fii Sénégal moo ndax moom si campagne bi bokk si cabinet campagne Macky Sall donc bu mu nekkee foofu noonu. bon comme technocrate la et tout. bon mhm. euh, technocrate yaa xam seen rigueur par rapport ak ñi nga xam ay politiciens classiques la ni ñuy doxee retors et tout affaire yooyu noonu. bon les gens ont vu que elle c'est une travailleuse bien avant ça elle dans la politique et 93 bon moo nekkoon directrice campagne Landing Savané nekk MSU après ñu ñu ñu avant boobu muy doon militer si euh, euh, comment dire si parti du Dia. Mhm. donc yàgg na nekk si politique donc ñu def ko ministre de la justice bu mu nekkee ministre de la justice bilan bi c'était quoi euh, pour man succès la ci ministère de la justice loolu moo tax mu am promotion en 2013 ñu nommé ko premier ministre bu mu nekkee foofu noonu y a eu des événements si vous vous rappelez. Mm l'affaire des Thiantakoun ak euh, ki nga xam ne mooy Cheikh Béthio donc mu nekkoon situation boobu ak chef les chefs religieux ñu koy teg pression comme pas possible ñu libérer Cheikh Cheikh Béthio ak euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ñoom ñoo di Thiantakoun a la la des des affaires de Malak boo xoolee fu mu finir boo tivaati seen une catastrophe mais à l'époque ak euh, affaire créé bi c'était très dur ñu mm-hmm. jàpp ñu jàpp sax ki nga xam moo nekkoon ancien mariam Omar Sarr xam nga ñu koy wax mais comment une femme peut arrêter euh, def euh, koo xamante ne Omar Sarr mënul génn territoire ba mu am si ay coow comment ça se fait que xanaa amul cœur yaayu yaayu ça yaayu tamit ay événement yu nga xamante ne yu yu méngoo ak yu ma yu ma lim nii yoo xamante ne moo lay wan ne moo ko jox promotion mu nekk premier ministre ci loolu am na coow déjà am na coow affaire yu cantaakun affaire yu malo des malades yi gars yi di ko wax lu nekk di ko saaga lu nekk mu dégg ko si euh, bu mu nekkee premier ministre aussi tamit bu mu nekkee premier ministre moom ci ñu mujjee ñëw APR presque ci la bokk ñu def ko premier ministre y a eu des gens tout ñu ko njëkk attaqué mooy les femmes de APR mm-hmm. mooy collectif femmes APR yi ku ku leen jiite mooy seen présidente Marème Badiane moom moo leen jiite bon quand je <laughs> faisais li bu ma ko wooyee daf dama bu ma wooyee ma ko am Aminata Touré eggalee ma sax bu ma woo kooku yaa ngi gis donc pour pour te dire que ci affaire bu haine bi mu ngi ci ba mu ngi ci euh, mu ngi mu mu ngi ci ba léegi. donc moom dafay occupé ba Mame Mbaye Niang bii nii frontalement comme ni muy def actuellement noonu la génn def ko ne am ne ne pourquoi Aminata Touré parce que boobu noonu mu ngi doon jël ampleur boobu noonu am na benn magazine américain Foreign Policy noonu la tudd moom lañu defoon personalité euh, po bokkoon na ci cent personnalités politiques yoo nga xam moom lañ reconnaître ci àdduna bi mhm. yooyu yooyu yëpp dafay am jalousie am euh, ñi nga xamante ñoo nekkoon ci si bi ay frustration yoo xamante ni ñooñu dañuy ñëw ne bon kii lan moo tax mu ñuy jiite affaire yooyu noonu donc ñu koy commencé di koy tegal ay ndigg sërëx mm. pour mu pour mu bañ a dem piège bi 2014 mu dem élection grave ñu boole ko koo xam ne en monstre politique Khalifa Sall ñu dóor ko fa ay dóor yu métti 2014 mm-hmm. foofu échec total presque carrière politique ñi ci ñu doon douter est-ce que du bàyyi politique mm-hmm. après mu toog presque c'est le désert affaire yooyu noonu dégg déggatuñ ko ci ci dara après ñu def ko euh, lu nga xam mooy envoyé spécial envoyé spécial bon parce que bu nga xamante ni ça veut rien dire quoi comme am na ay réseau à l'international bon Macky bugg ko bàyyi mu dem ñu def ko poste boobu nga xamante ne presque amul dara da ngay fayeeku mais bon amul da ngay wër di def ay conférence affaire yooyu. 2017 euh, ñëpp a foogoon ne en 2017 moom mooy nekk tête de liste Benno Bokk Yaakaar Mohamed Boun Abdallah moom moo ko mujj ak Kaolack mu def fa benn déclaration wax ni dootul dem ba mu demee Kaolack parce que 2014 def na Grand Yoff défaite. Mhm. loolu loolu defet la xajatul fii mu dem Kaolack changé bureau de vote dem foofu ba mu demee foofu waa Kaolack yi Diène Farba Sarr mi foofu. Mariama Sarr mi foofu am na Nafita Nafissatou Cissé nekkoon femme leader leader benn bokk yaakaar yi ñoom ñëpp dañ ne. kii lan lan lan la fi def affaire amul ñu njëriñ quoi moom militant vingt cinquième heure la yaa ngi gis lu ma la expliqué donc mu ngi noonu ñu ba loolu pression boobu def ba demul mu bàyyi ni demul ci élection yi donc bi mu ñëwee ñëpp doon wax ne am na militant yoo xam sax dañ moom moo jiite moo ne cabinet campagne 2019 élection yi mm-hmm. Mm-hmm. poste boobu noonu si lañ ko bénéficier jox président mu nekk 16 bu mu nekkee 16 un 16 mois la def 16 ñu dëggama ko fal ko rival boo xamante moom Idriss Seck gis nañ seen relation yi nga xam ne c'était tendu non Idriss Seck passation de service bi y a même passation de service gisee diatribe yu ko yu mu doon liggéey bi mu doon quitté sax CS daf doon wax Idrissa Seck musul liggéey presque la mujj liggéey xamul ay ordinateur ak affaire yooyu noonu ba amul clash seen diggante ba ñu interdit ki nga xamante moo directeur directeur ressources humaines bu nekkoon ci moom pour mu bañ a dugg donc yaayu yaayu ça ba jëlee ba 2019 nga dem bu mujj bii nii gis nga nu mu demee mm-hmm. moo doon jiite campagne électorale bi nekk tête de liste à la fin gis nga assemblée nationale ñëpp foogoon mooy nekk euh, comment dire président de ci hémicycle la ko président Macky Sall woowee wax ko ni ko du ma la ta du ma la fal lu nga xamante ne moom mooy post bi bon changé de nom euh, bon voilà ci lañu fal ah, Amadou Mame Diop ah. ci ak euh, comment dire bon grâce à Farba Ngom parce que Farba Ngom presque moom conseil lépp li nga wax yëpp ndax danga nga jàpp ni Aminata Touré c'est une victime de la politique sénégalaise waaw bien sûr bu fekkee ne ni victime la lan nga jàpp ni mooy erreur yi mu def parce que en fait ku nekk sa moom elle a grandi dans une famille bu nga xamante ne ak ay frères am euh, vie boo xamante ne vie à la garçonne lay mënee quoi. Mhm. Euh, lu mu xalaat da koy wax euh, donc loolu sa joue et puis Sénégal société patriarcale la donc société patriarcale moom mooy moom mooy góor yi ñoo dominer jigéen ñi. boo nekkee ci politique surtout nga nekk ci langue politique nga nekk jigéen am baat di wax affaire yooyu noonu bon les gens vont boobu kii se prend kii donc mu ngi noonu loolu frein la. Mhm. loolu moo tax ba nga xamante Euh, mu nekk victime partout fu mu nekk euh, dafay imposer te moom bon voilà day imposer dañ ko poser question genre par exemple bu mu nekkee premier ministre est-ce que nangu nga président di jaar directement di woo ministre yi ñu dem pare directement mu ne président boo am na droit def ko mais bon fokk man ma contrôler loolu moom dafa il dafay bëgg euh, di contrôler lépp lu nga xamante ne moom mooy xew et loolu soo ko bëggee def Sénégal fii ça passe par le mode jigéen ñi la plupart soo xoolee histoire bon voilà am nañ benn kii mais pour nga àgg fu mu àgg benn ñaari jigéen Mame Madior Boye Mame Madior Boye il était pas politique du tout. Mhm. benn scandale Batalo Diola moom moo ko wàcce moom moo nekkoon casquette am purement politique te gis nga bon fu mu fu mu mujj.